Idrissa Elimane Wane Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information euh, Pape Abdoulaye Dièye et à la partie euh, technique. L'opposition liste ses conditions pour une décrispation du climat social. Le Front de résistance nationale a profité de sa rencontre avec l'émissaire du Khalife général des Mourides pour formuler ses demandes politiques telles que l'arrêt de la persécution des leaders euh, de l'opposition. Voici Abdou Mbaye au micro de Amadou Moustapha Dia. et de l'instrumentalisation de la justice pour cibler et éliminer de potentiels adversaires à des élections. Le rétablissement des libertés démocratiques d'expression, de manifestation pacifique, de diffusion libre de l'information, l'arrêt des poursuites des militants de la démocratie et la libération de tous les détenus politiques, l'identification, après enquête indépendante, et la poursuite judiciaire des auteurs des tueries et des nervis qui se sont illustrés durant les dernières manifestations. L'indemnisation des familles des victimes et des blessés. L'application des accords consensuels issus de la commission politique du dialogue national. Le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et de l'élection présidentielle

en conformité avec la lettre de la Constitution et l'esprit de cette dernière, tel qu'il a eu à l'exprimer lui-même au moment de la réforme constitutionnelle. Cet engagement du président Macky doit être public et faire intervenir des garants tant nationaux qu'étrangers. Il est demandé l'abrogation du système de parrainage qui s'est révélé inapplicable et incontrôlable et dont il a été prouvé qu'il n'a comme l'établissement et la gestion du fichier par un organe indépendant de l'État soumis au contrôle des partis politiques. La nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un nouveau doyen des juges d'instruction C'était Abdou Mbaye de l'opposition. L'émissaire du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, se félicite de la décision de l'opposition d'avoir annulé toutes les manifestations et leur demande de faire preuve de patience afin de donner le temps nécessaire au Khalife général des Mourides et au président Macky pour apporter des solutions aux doléances exprimées Serigne Bassirou Mbacké Porokhane au micro de Amadou Moustapha Le calife des Mourides Serigne Mountakha vous remercie. Vous, leader de l'opposition, vous avez accepté sa demande en faveur d'une paix au Sénégal. Il vous demande aussi, de la patience car il s'en est ouvert à l'autre partie, en l'occurrence le président Macky Sall, qui lui aussi lui a assuré qu'au moment où ces dossiers seront mm. sur sa table, il fera le maximum pour régler la situation. Il vous demande de garder cette patience et de lui donner l'opportunité et le temps nécessaire pour qu'il puisse discuter avec le président Macky Sall en vue de régler toutes ces questions. Le khalife est bien au fait de la situation, même s'il n'est pas intéressé par la politique, il est un Sénégalais en tant que Sénégalais, tout ce qui se passe dans le pays C'est la raison pour laquelle il s'est engagé pour une solution pacifique. Le calife vous remercie, vous de l'opposition, d'avoir accepté de sursoir à vos manifestations. Cette décision a été bien appréciée par le calife qui vous en remercie, raison pour laquelle il vous demande de garder votre patience. pour répondre à ses doléances. Comme il l'a toujours dit, le calife a bon espoir que le président Macky lui accordera toutes ses demandes par rapport aux doléances exprimées ici par l'opposition. Nous tous ici présents, nous savons ce qui est raisonnable et sur la base de cela, l'on pourra se féliciter de cette démarche de pacification du climat politique. Maintenant, on peut considérer que vous de l'opposition, vous avez joué votre partition. Il revient sur demande du calife de réagir par rapport à cette situation. Et le calife, comme il l'a toujours dit, a bon espoir par rapport aux demandes formulées auprès du président Macky Mais sachez que si la paix ne dépendait que du calife, il n'y aurait aucune violence dans le pays. C'était Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, l'émissaire du Khalife général des Mourides qui a rencontré euh, ce mardi l'opposition. Le ministre de la fonction publique, du renouveau et du service public répond aux syndicalistes du G7 et l'invite ces syndicalistes qui souhaitent son départ au sens de la responsabilité. Mamadou Camara. Madame Mariama Sarr, le ministre de la fonction publique du renouveau et du service public, invite les syndicats d'enseignants à jouer pleinement leur rôle au lieu de verser dans la polémique. Madame Mariama Sarr. Nous sommes là pour assurer la mission qu'on nous a confiés. Mais nous ne voulons pas verser dans la polémique. Et j'invite nos partenaires sociaux, que sont les syndicats, à aller ensemble dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des agents de l'État, précisément des enseignants. Dans la synergie, dans la solidarité, pour pouvoir prendre en charge les préoccupations. Je pense que le moment, c'est un moment où nous devons aller dans ce sens-là, dans le cadre de la solidarité, de la synergie, et pas dans le cadre des attaques personnelles ou individuelles. Donc, ce qu'on a comme charge, elle est assez importante pour que l'on doit viser ce résultat-là et ne pas viser autre chose. Face à la presse, elle a soutenu que des pas de géants sont faits dans la gestion des dossiers des enseignants et de tels efforts seront encore poursuivis, a-t-elle dit. Kaoulak, Mamoudou Kamara, Sud FM. Hapsa Eliman dal leen nag jàmm ci euh, xibaar yi njëkk yi tey ji euh, ci àllarba gi euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ñu ànd ceek ki nga xam ne mooy Pape Abdoulaye Dieye dañu koy door ak kujje gi nga xam ne daal ci kanamu ki nga xam ne moom la xalif général kulli murite yebaloon ca ñoom tey jile ci talaata gi daal ñu ngi koy xamal ñoom daal seen sàkkuteef jëmale ci wàllu politique ñu dakkal xoxatal bi ñuy xoxatal ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci kujje gi bokk na ci daal kii di président bi bañ waxati wàllu ñetteelu euh, mandat ñu déglu si euh, Abdou Mbaye ci micro Amadou Moustapha Diagne. jot na nag tey ndax liñ doon ragal am na. jot na ñu delloo si ci biir Sénégal démocratie bu nga xam ne lii dindi woon nañ ko ci. li nga xam ne lii jotoon nañ ko ci yàq. ñu defaraat ko mu mën a ànd ak jàmm ndax. wàññi démocratie fépp fu mu am ci àdduna. ci fipp lay muccee ak fitna yuy jiital. ne nañu bàyyi di rëbb opposant di góorgóorlu jaarale ko ci topp ko ci yoon mu bañati bokk bañati mën a doon électeur bañati mën a bokk ci élection ba ñu mën ko ci fal loolu dafa war a jeex nañu bàyyi itam parrainage bi nga xam ne dara indiwu ko sudul war génnee ay opposant ñu bañ bokk élection présidentielle dund nañ ko te loolu indi na décision bi conseil constitutionnel génnee ci 13 janvier 2019 mu duggal ci loo xam ne mun na ko doon dëkk ndax parenage du leneen sudul doon la ko constitution waxee signature u électeur ñuy wax itam ne bokk na ci li indi fitna ci réew mi troisième mandat dinaa ko def du ko def constitution leer na ñetteelu mandat yu toppante mënut a nekk kon nañu dalal xel yi dalal xol yi mu leer naññ ne te mu jógee ci ki toog mu mën a wax ne troisième mandat mënut a am waxoon naa ko fi te moo nekk ci constitution bi képp koo xam ne mën nañu jàpp ne ñu ngi la tëgg ràpp ci kaso bi ndax rek nga doon politique homme politique wala femme politique boo xam ne ànduloo li président di wax li parti bi di wax ñu ngi laaj ñu bay leen ñu génn ñi nga xam ne ñii ñàkk nañu doom ñi nga xam ne ñii gaañ-gaañ dal na seen kaw te metti lool ñu ngi laaj itam état mën leen a indemniser am na nag loo xam ne amul réew bu ko mën a dund ba pare di des ci jàmm kumba am ndey nag kumba amul ndey weesuwul li nga xam ne nii dund nañu ko ci fan yu néew xale bu jigéen topp na opposant mën naa wax na ci ay waxtu yu néew dossier booba ñu instruire ko ñaari at député ak ancien premier ministre déposé nañu plainte mu jëm ci ñu war leeral faux boo xam ne dafa leer nañ jëm ci pétrole Sénégal ak gazu Sénégal ñu jëbbal ko société bu ñuy wax Petrotim ki doon àddu ñuy teewlu mooy Abdou Mbaye teewaloon kuje gi wax seen tur tey jile ginnaaw gi ñu dajee ki nga xam ne ci euh, moom la xalif général kulli murit yebaloon ci ñoom di Serigne Bassirou Mbacké Porokhane moom nag muy rafetlu bu baax a baax bi nga xam ne moom la kuje gi jël ngir teg ci suuf bépp manifester boo xam ne dañ ko fas yéene woon amal mu leen di laaj nag ñu jox leen euh, moom xalif général kulli murit ak président Macky Sall ab dal wala boog diir koo xam ne danañu mën a saytu seen i tawat ñu déglu Serigne Bassirou Mbacké Porokhane mu ne nañ leen sant gërëm leen na ci jiit ndax keroog kat ñu bari xëy na yéen yéen la njëkk déggal ngeen ko may ngeen ko cër sant na leen ci gërëm leen yoon la ca des itam na ko la mu koy wax moom gis na ci moom métti na waaye nag la ko ci nekk nukkari gis ci moom lépp dana def kéemtalaayal kattan ba sëñ bi du la bëgg dana ko am waaye nag na ko may ndax nguur dafa am nu muy dox moom nag ab taw rek ci bu rek def nii day am fu mu ak ci moom lu ak ci moom lu mu ci mën lu ak jàmmi moom xelam dal na ci loolu yéen yéen ko wan jëf ko moom la ci des nag mooy mu ñaan leen ne li ngeen ko mayoon ndax moom bi ngeen jaamaar loolu tam di rek loolu rek da koo def cër bu rëy rëy rëy def cant bu rëy rëy ak mbégte bu rëy rëy xam ne wax dëgg yàlla def ngeen ko bàyyi def ngeen ko publicité di ngeen ko jëf loolu rek da koo doyoon waxuma la ne boobu ba tey ngeen ngeen ni tekk ci di dëgg nam leen ko ñaane woon kon nag loolu la bëgg rek xam na bu baax a baax ñu ne ci biir ngeen jaar jaaru fi waaye moom am na fi jaar boo xam ne fi xam na luy métti ci doomu aadama ba fi mu da koy xam di ko yëg waaye nag ginnaaw da ngeen ko mooy ngeen continué di ko mooy wax ak doomam jee ca nam toll ak fa mu toll ak la mu mëne lu jaar nag ñëpp xam na ñëpp xam nañ bu demee ba xam ne may na ko ñëpp lii la ko may waaw bu bu bu bu ko mayee loo xam ne jàmm mën na ci am loolu rek li sëñ bi ñaan moom la du bu ko mayee léeg-léeg da ngeen ko xam daan ko bokk xam waaye li am solo daal mooy góorgóorlu ba bu boobaa sëñ moom ñu xam ne jaanam wàcc na ni ko xalifa waxe li mu war a def def na ko lu mu war a wax na ko lu mu war a dox dox na ko yéen seen jaan wàcc na la ngeen naroon ak la ngeen naqaroon lépp def ngeen ko suuf di déglu sëñ bi loolu nag genn wàll gi rek moo ci def te góor gi rafet na ci njot ndax xam nañ xam nañ sër biñ ko jëdd sëdd xam nañ ni xam nañ ni kuy sëriñ bi xam nañ itam li ko yàlla mooy bu fekkoon ne jàmm dafa nekk ci loxol sëriñ bi keroog ba bal bi tàkkee la jàmm di am ki doon àddu ñuy teewlu mooy Serigne Bassirou Mbacké Porokhane eh, te eh, xalif général kulli murit yebaloon ko ci eh, ndakaaru ministre bi ñu dénk wàllu fonction publique di tontu waa G7 yi nga xam ne dañu sàkkoon mu jóge ci boppu ministère bi mu dellu si di delloo si seen xel Mamadou Camara madame Mariama Sarr di ministre bi ñu dénk wàllu fonction publique yëkkati na ay kàddu di tontu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ngaa ñi ne dafa war a wàcc te tamit warul jiite ministère bi nga xam ne moom moo yore wàllu liggéey moom ministre la fonction publique nee na loolu du seen cër feneen lañ leen di xaaree lu dul ci ay dàggasante santé madame Mariama Sarr. moo tax may ñaan sunu acteurs yi nga xam ne suñuy partenaire lañ parce que ñun ñoo bokk li ñuy liggéey ñoom jiite jàngalekat yi yàlla teg ñuy liggéey pour defar leen li nga xam ne moom la ñu bëgg ci seen carrière kon ñun ñaar ñëpp ñoo bokk objectif ma bëgg nag ñu jël lépp loo xam ne leneen la lu dul loolu ñu teg ko te ànd liggéey pour jàppale ñi nga xam ne ñooy jàngalekat te ñun nag ba ñu ñëwee ba léegi ñu ngi ciy def ay effort yoo xam ne ñoom reconnaître nañ ko bureau relais rek mën naa ko jël comme exemple yàggul dara woote nañ fii euh, SAEMS woote na di remercier di remercier le bureau relais de Kaolack ci liggéey bi ñuy defal kon nag ñun wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ci loolu jàngalekat yi nañ ko jël en mai te bañ ci boole leneen loo xam ne bokk loolu rek moo mën a dimbale jàngalekat yi ñii liggéey am xel yu dal pour liggéey ko am jot bi pour liggéey ko ñoom ñiy taxaw tamit ñu taxaw gën a taxaw seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu nag parce que yàgg nañu toog ak G7 yàgg nañu di liggéey ak ñoom ci cadre négociation yàgg nañu di liggéey ak ñoom ci cadre gestion des préavis de grève parce que boo jotee préavis da nga ciy liggéey def ci am na ndax am na point yu bees wala amu a mën a def pour satisfaire ces demandes saluer de responsabilité mais ñu gën a ñu ñaaxaat leen ñu jël mbirum gestion de la carrière des enseignants jël ko en charge ñun ñëpp ñu ànd ci liggéey ko ba nga xam ne ñu nekk ci base bi di liggéey guddeeg bëccëg di jël xam-xam di ko dugal ci xale yi ñu ñoom tamit ñu mérité loolu ñu jàppale leen. ministre de la fonction publique du renouveau et du service public di madame Mariama Sarr nee na lu jëm ci wàllu dossier jàngalekat def na si ay jéego yu am solo te tamit du ci taay yooyu ba jàngalekat bu ci nekk gis ci sa bopp Kaolack Mamadou Camara Sud FM fukki simili ak juróom-benn moo tegu uh, ci uh, uh, minuit ci rajo Sud FM mu yem ak fi ñu yem ci xibaar yi ñu sant papa Abdoulaye yi biñ ci àndaloon sant leen gërëm leen yéen ñi safoo rajo Sud FM fajar ak jàmm beneen équipe dina fi teew ngi dëgtal leen yeneen i xibaar ci français ak ci wolof balaa loolu nag dañ leen di bàyyeek kii ma duppee l'homme de la nuit di Sidi Gueye mu ñëw ci émission bi di taal leen lamp yi ñu fanaan jàmm. taal leen yi.